mbootaay yi nga xam ne ñu moo ëmb uh, daara yi boole daara yi ëpp Sénégal waaw sunu bis tey bii li ko waral mooy bëgg a feeñal daara liggéeyam ci réew mi gis nañ ne ñu bari tey dañuy jéem a minimiser li nga xam ne daara liggéey na ko ci réew mi te kenn ku ne xam na ne li baax ci réew mi yëpp mën nañu wax ne daara la ñi baax ci réew mi ñëpp daara leen ndax daara système la boo xam ne ci yàlla bur bi subhaanahu wa taala la joge du système bu doomu aadama teg waaye yàllaa ko teg indi ko wàccel ñi alquran ba muy wàcce sunu maam aadama ci suuf daf ne ko wàccal fa imma yatiyannakum minni huda fa man ittabaa hudaya fala yadillu wala yashqa euh, wàccel si kaw suuf sama njub dana ñëw képp koo xam ne sa ma njub googee ba mu ñëwee topp na ko kooku du texee di du réer du sànku ñun gëm nañ ne jafe-jafe yi nekk ci réew mi yëpp li ko waral mooy gannaawal bi ñu gannaaw daara ak ñooñ daara ndax yàlla buur bi subhanahu wa taala du waxantu moom moo ne woon man arada an zikri fa inna lahu maishatan donka képp ku du mooyu sama alquran ji da nga dund dund boo xam ne bu ñagas la bu ñu seetloo réew mi ci kiris rek lay dund problème bu jeex beneen ñëwaat te loolu yëpp politiciens yi ñoo ñu ko teg loolu yëpp loolu yëpp ñoom ñoo ñu ko teg te li ko waral mooy lan mooy système bi ñu indi indi dafa woroog système borom bi subhanahu wa taala te yàlla moom mi bind doomu aadama moom moo xam li nga xam ne mooy jubal doomu aadama mu wàcce ko muy alquran inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam bépp njub booy sàkku ñëwal ci alquran moom moo lay orienté kon ñu ngi woo politiciens yi woo ka ci jiitu mooy président de la république nga xam ne moom lañ dénk senegal nga xam ne tey moo jiite ñëpp ñu ngi koy woo ci jàmmoo ak waa daara ñu ngi koy woo ci baye daara ak njàngalinam ak doxalinam te jàppale leen ndax citoyen leen ci réew mi la ñu dëkk dëkkuñu fenn fi la ñu dëkk te it li nga xamante ni moom lañ maanaam defal réew mi kenn ku nekk xam na ko tey suñu kilifa diine yi ñu ndamoo yëpp nga xam ne ñoom ku ci jàq wala kenn ku ci nekk balaa ngaa falu da dem sukk ci ronam ne ñaanal ma jàpp nga ne sax bu ku ànd ak yow rek yow yaay falu ñoom ñoo ñëwee day alquran ci la ñu nekkoon alquran leen fal ci la ñu nekk kon ñoom itamit ñu ngi lancé appel boo xam ne ci kilifa diine yëpp. di leen yëgal ne reen boobu nga xam ne mooy reenu lislaam garab gu lislaam reen ba reenu njubal ba ñu ngi koy dagg am na ay janax yu koy ñeer di ko ñeteñ bëgg koo dagg te su daggee rek garab gi jóoru kon nag ñu leen koy yëgal ñoom ñëpp kenn ku ne la yëkkati sa kaddoom wax ak président de la république mu bàyyi daara yi ci ak seen maslaha comme ne ko sunu maam Abdul Aziz si daan waxee nañu bàyyi sëñ daara yi ak seeni maslaha waaye ñu fekk leen fa xool la ñu aajowoo ñu dimbale leen ca loola loolu la ñuy woo ñëpp ñoo ngi wax nag ñi nga xam ne ñoom ñooy indi seen doom ci daara yi ak ñi nga xam ne ñooy jàppale daara ndax Sénégal réew mu la moo xam ne réew mu bëgg daara la moo tax état bu sérieux état bu sérieux day xool aw askanam la ñu bëgg mu jàppale leen ca malgré ñi ngi wax daara ay ay coonoom ak la ca nekk di tuumaal dañuy exploité xale yi dañuy jaamu jaamuloo xale yi waaye ànd ak loolu yëpp gis nañ ne ñun daara dañuy jël ba dañuy fees dañuy feesal daara yi day fees kenn ku ne yàkkamti ngaa am doom mu màgg ba nga yóbbu ko ca daara ak ànd ak li ñuy tuumaal daara yëpp loolu moo lay xamal ne daara dafa doon loo xam ne mooy cosaan Sénégal ndax daara bi mu duggee Sénégal léegi juróom-ñeenti téeméeri at yi mat na njëkkee na fa école française bi nga xam ne moom lañ jox lépp njëkkee na ko fii lu toll ak juróom-ñaar téeméeri at kon suñuy maam daara la daara la la ñu xamoon te daara moo dëpp ak suñuy aada kon nag nañu jàppale daara bàyyi daara ak maslaham loolu la ñuy woo ñëpp di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy ndey daara yi ak képp koo xam ne yaa ngi jàppale daara di la ñaanal yàlla bur subhanahu wa taala yàlla defal la tawfiq hada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa ali alihi wa sahbi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullah